ngeen jot suñu vidéo nag di mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar te di leen sant ci topp gi ngeen ñuy topp ci seen sit bi ngeen xam ni mooy Tawfekh Production nga xam ni doxul ci lenn lu dul diine ak lislaam ak liggéeyu Sëriñ Bamba gannaaw booba nag tey danoo ñëw ci jàmbaari lislaam ci jàmbaari Serigne Bamba ci jàmbaari yoonu murit gépp muy Serigne Saliou Mbacke lixlaas nee naa ko Mbacke boo ko séenee muy dem bu laajte doxu ci lenn lu dul liggéeyal alxuraan ak diine ak maamam sëriñ Bamba di nit ku baax ñoo ngi fii tey ci caaroy gaar ah bu ko defee nag dañuy siyaar tey wax ni ba nu xëyee ba léegi ñu ngi jàng alxuraan ak xasaayit berne gan ñi te loolu rek Mbàkke ci la sa maam ju tedd ja nekkoon di Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke nag fii nga teg sab tànk nee naa la fila la jaan ju mag ak jaan ju ndaw amul jaan bu la màttee dañuy luggi rek mbaa nga dee maam Moor Jaaraay sa maam Sëriñ Bambaay sa maam day na way waaye sa yoonu maam wii di Sëriñ Bamba nag gànnaay woo ko xeex ko gaynde du jur xar du jur bay ñoo ngi lay siyaar bu baax Mbàkke man ngaa sant mbàkke nag ñu summi la dàll ak mbaxana waaye nag jikko lees di toppee gars yi nii nu bébaroo toog fi suuf di xaar ndigal sa jikkoo waaye nag nga jël yoonu sëriñ bamba yi ñàkk ko bag lu ko yàq du jaare ci yow kon mbàkke ni ngi lay sant bu baax di la gërëm bu ko defee nag dañuy sant sunu soxna si nga xam ni soxna asu di mbokkum soxna bintum moom sëñ Abdou Latif moom sëñ Cheikh Abdou Latif nga xam ni ca suba ba léegi mi ngi fi lépp lu ko war ci bés bi def na ko kon soxna si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa da ñëw rek yenn si waaye bu ko defee bu bu ca ngooneeg jàmm bu yëf yi commencé bu ko defee mbokk taalibe yëpp dinañ gën a jege si kon bu ko defee ma jox sëñ sëñ Assane mu mu mu barkeelu ci mu sànni ci ay kàddu rek sëñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. noo ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sant Sayxul Xadim sunu yaakaar tey ëllëg ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér balim naa la Serigne Touba mu def ko te ànd koog sagoom ànd koog mboolem mbokki taalibe yëpp noonu la ñu amee mbégte bu baax a baax nag di siyaare Serigne Saliou Mbacké Likhlass mi nga xam ne moo sabab jataay bi sabab teewaay bi itam di sant sëriñ tubaa di lu ko mat fulla la fayda la waaye tamit gore la ndax nu mu mer rek Serigne tubaa la kon defe naa ne ku ne war a tant sant Serigne waaye moom moo ci war a jiitu ndax euh, bu Serigne Touba Xaadimu Rasul jële jagle gu toll ne bokk ak Mamor Jaar borom Cham ñaari wayjur yëpp bàyyee ko ak magit mu féetewoo ko mu wax ni bi mu yëree àdduna fekk fépp lëndëm te mënta ña mënta ñàkk fu mu liggéeyal yàlla mu yër nekk soxna jaara fekk fa bu leer te nee na ba ma fa wàccee Mamor Jaar borom Cham laa fekk kon defe naa ne bu loolu lépp maase am nga walbatiku tànn sant sëriñ Touba def nga li nga war a def waaye nag mbokki taalibe yi nga ko àndal itam muy lixlaasul xamal ak lixlaasul xalbi ak daayira bee nekk ca Kébémer ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ko ànd dëkk fii fi Ndakaaru Caaroy gaar gi ak mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fi teew fi wax dëgg yàlla loolu lu am luñu ñu bëggee la waaye mënoon ngaa woote nag yàlla dogalit nga am ab tànt am ay baas waaye tamit jàpp bis bu rafet waaye nit ñi nag moom ñàkk ñu jëmuwaay waaye nag yàlla daa dogal bu fekkente ne da nga ne Serigne tubaa Serigne Touba mooy sa maam boo nigee ba wax ko koo xam rek amatul sens waaye yàlla daa dogal nag sab yëngu ak sab dal lépp di sëriñ Touba Xaadim Rasul loolu nag moo sabab koo woo dana wuy si te bu wuy see sëriñ Touba rek la fiy xeeñ te yàlla dogal ne fi ñëw da xam ne suñu Touba rek nga fekk barab bi ñu koy defee doy na sëkk ku ne caaroy gaar boo jàllee ay at yu gé at yu néew ci gannaaw koo ne ko foo jëm nga ne ko caaroy gaar du ñëw ngir ku ne xam ne caaroy gaar ni mu demee woon metti woon na lool waaye tamit boo ko tànnee di fi liggéeyal Serigne Touba kon day mel ne nekk demoo rek xool fa mu gën a yomb nga nga tànn ko waaye ñi la fi fekkit doonuñ ñoo xam ne ñàkkuñ fuñ jëm waaye dañoo xam ne bu ñëwee Serigne Touba rek lañ fi fekk kon ñoo ngi ñoo ngi la ci sant bu baax di la ci gërëm di wax mboolem mbokki taal bi yëpp ñu gën a lu ci menn mbir mu ñu nàmm suñu xel yi bu baax a baax a baax daas ko tey wër Serigne Touba. ngànnaayul ngànnaay li nga xam ne nag moom ngay rëbbe sëriñ Tuubaa am xel lay doon ndax alxuraan boo fa demee yàlla buy orienté doomu aadama yi walla mu wala mu joxe xéewal afala taqiluuna da nga ko fay fekk lu bëri bëri yatafakkarun da nga ko fay fekk lu bari bari yaa ulul albaab da nga ko fek lu bëri bari te lépp la ko jiitu yëpp ay wax la yooyu yoo xamante ni bii ne yu yum ñu ko ñor lay doon waaye boobaa day jëfandikoo am xel xel nag mooy mooy mooy mooy li nga xam ne boo ko amee bu la yàlla dénkee alal ci àdduna du la yàqal dara ci wut yàlla bu la yàlla dénkee itam ci ci ci ci ci ci ci kàttan du la yàqal dara ci wut yàlla waaye bu la yàlla dénkee aw aw tur ba ñëpp du la dégg wutit du la yàqal dara ci wut yàlla xel moomu nag moom ngay yor di ko rëbbee Serigne Touba foo dégg ñu ne Serigne Touba ma nga fa boo naan nekku faat na ko teg fa muy na nga fa dem ba xam ba ma nga fa wala nekku fa itam ba xam ne ma nga fa bu buñ ne kenn fa am Serigne Touba na doon na doon na doon sa jëmm jooji waaye fi jamono tool nag jamono ju naqaree liggéeyal Serigne Touba la ndax nag la alxuraan waxoon ne yuuliju layla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi layli yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi dañ ci doo ko toll yàlla nee na woon dana danaa jël euh, guddi di ko dugal ci bëccëg di jël dee di ko dugal ci dund kon yàlla moo programme adduna ñëpp comprendre waaye ki comprendre kenn la mooy ki ne jàkk Serigne Touba benn bëtam te feneen kooku moom comprendre na li li li li ko li koy ne ci àdduna kon benn benn bët war am ñu xool ko Serigne Touba bu ñu ko jàkk Serigne Touba lépp lu nekk Serigne Touba duñu ko gis kon gestu gi matu ko ndax Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne fu ñu ko tudd yéen ñëpp ngeen fettasu daa yoroon benn bët xool ko Serigne Touba te te te gestuwut moo taxit nag boo ne Serigne Touba ne Cheikh Ibrahima Fall fii jamono toll nag dañoo bëgg a am àdduna am yàlla te damay wax ne man ca jàkk ji man ca baar ba mënuñoo ànd da nga naan jàkk yàlla rek boo amee yàlla nag mboolem lu yàlla am donc am foo gis ku ko saytu ay yëfam na lay gënal yëfam ndax ku nekk gën yëfam ku am ku bëgg Serigne Touba nag da ngay wut Serigne Touba boo amee Serigne Touba nag lépp lu Serigne Touba am da nga ko am ba am loo xam ne bëggoo ko am te boo ko amee du amal jëriñ Serigne Touba rek nga koy wutewaat kon Serigne Saliou Mbacké mii dañuy am mbégte bu baax di sant li lii mu lii mu def nii defal na ko mbooleem ko sant Mbacké waaye defal na ko mbooleem koo xam Serigne Touba ñor na la li tax ma wax loolu mooy maanaam bu woote woon leneen it képp ku bëgg ku bëgg Serigne Touba da nga ñëw lan moo koy waral mooy jëmm ji da ngay jàpp ne lum lum dur jam ndax suñ tubaa suñ suñ tubaa mooy ngànnaayam waaye nag ndox bu mu xamee ne la suñ tubaa diiroon rek moom la diiroon muy yàlla ak yonent bi ak sëriñ tubaa xaadimu rasul loolu nag ni ngi soññaan mbokki taal bi yëpp nu gën a góorgóorlu baat takkaat laxasaay takkaat ndig yi xam ne àdduna ak alaaxira li fi amoon njëriñ yàlla jox na ko sëriñ tubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngi leen di nuyu nuyoo bu njëkk di leen siyaar bu baax a baax di leen bëggee di wax rek ne xëy na kàddu yi moom day doon kàddu yu ñu jiital rek yeewee ko yenn ci mbokk taalibe yi nga xam ne ñëw nañ te xëy na yàlla dogal na ñu am yeneen yitte yi ñu war a doxi ku mel ne sunu waajur wi di soxna Sufaal nga xam ne moom daa bàyyi yitteem yëpp tew ci suba ba léegi def ko ngir sunu jëmm waaye def ko ngir sëriñ Touba def ko it ngir jëmmi soxna Bintu Silla nga xam ne moo am taxawaay bu rafet bi ngir ngeen xamanteek ñun ba am ci ba ci taxawaay bi toll nii mu mel ne moom nag mbooloo mu am solo la àndal xëy na daa daa jiitu si moom ngir bu soxna yi ñëwee mu mën leen a xaar ci kër ga ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm li sëñ di nuyu sëñ Assane ak sëñ Mbacke Fadiama ak soxna Mbène nag ñi mu àndal ñëpp di leen bëggee di wax ne sant naa bu baax seen teewaay moom kawe na lool ci man di leen bëggee bu wér di wax rek ne bis bi moom ni ñu ko tàmbalee biig incha allah rabbi noonu lay ne ba suba lépp sant sëñ Tuubaa rek lépp sant sëñ Tuubaa rek li li sëñ Assane wax léegi sëriñ bi lim ñu defal buñ buñ buñ doon dagg suñu yàpp yaram di ko ko jox sax du tax ñu jot àqam. waaye moom soxla wutu yàpp yaram lim soxla ci ñun mooy ak njub liñ soxla ci ñun mooy ñu fexe doon nit ñoo xam ne fuñ dem fu ci kenn dem rek di nga représenté jëmi yoon web kon nañ góorgóorlu bu baax ci ndigali suñ boroom yi fonk julli juróom moo jiitu buñ mënee di ko defe ci waxtu wi suñ ko mënta defe ci waxtu wi it nga fexe julli waaye defe ko ci waxtu waa gën ku ko mën it boo jegee jàkka wala nga am ñoo ko mën a àndal ànd leen ko muy juróomi nit sax di jullig mbooloo kon ñu ngi leen di gën a dénkaat baax julli ca waxtu ya ak jullig mbooloo ndigali Sëñ Tuubaa yi it ngeen góorgóorlu ci fexe cee def seen kémt lay kàttan fexe am fulla am fayda am jom loolu rek lañ leen dénk ngeen gën a góorgóorlu baax te xam ne nag bis bi moom daanaka tàmbaleegut lu war a dem ba suba buñ ci tollee waxtu tàmbaleekut tàmbaleegut soxna su la xamul nu ma koy def rek moo tax ma ba koy yeewi ndax mag gi ak ba nga xaar kii ci kër ga kon moom day ñëw ñu ànd ko ba ba bis bi jeex di di di di di sant bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax kàddu yi ñu yëkkati sax xam naa sëñ Abdou Khadir mii moo ko waroon yëkkati mm. yàlla dogal bi mu yegg si fekk nañu xawa a tuuti waaye dañuy daaneel kon di di di sant rek di leen gërëm bu baax a baax a baax soxna Awa di la di soxna su di la sant bu baax di di sant waa Tawfekh Production ñi ñu àndal euh, bis bi di leen bëggee bu baax a baax a baax di am mbégte ci mbokk mi dinaay sëñ Fallou Seck ma nga xam ne suñu wëllëre la bokk ci génération Lixlaas bu diaspora bi topp ci jëwriñ ji di Majaw di jàmbaar lool ci liggéey bi moom it moom mi ngi door a teew ci bis bi ndax mi daa ci tukki fexe na ba jëmm Espagne googu ñu bëree bëree bëree bëri mu xamale leen ak sama jëmm ji te dara warula ko lu am xemem tef ci ñun ak bëgg bëgg suñ tubaam rek di sàkku ngeen ñaanal ko bu baax bu delloo ca réew ma mu am fay xéewal yu baree baree bëri ci barke Seex Xaadim di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa sëñ Abdou Khadre da leen di dénk ñaari kaddu rek kaddu yi ma wax moo ko ma man li ma xaw a ñëw xaw kii moo tax ma yëkkatil ko ko waaye bu leen dénkee ñaari kaddu rek ma ñaanal ñoom soxna suñu mën a yeeweeku incha Tawfekh production nga xam ni mooy teleb Serigne Bamba nga xam ni lépp looy séntu ci liggéeyub Serigne Bamba boo geesoo gis ko ci Tawfekh production nee naa leen benn bëgg rek la am muy Serigne Bamba jox na ko ko di leen siyaar bu baax a baax a baax Serigne bi nag nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëñ Abdou Khadir mii nga xam ni mooy doog ak si ilimaan yi ilimaan yi sëñ Abdou Khadir jóge ba Touba. nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax ni tànk yi mu doxee Touba ba ñëw fii lépp yàlla na ay tànku yiw képp ku fi ñëw yàlla na nga am ngërëmal sëriñ Bamba ndax ñëpp nag aw yiwa fi indi Mbàkke waaye yow loo amagul séntu ko luy jaay waxaaleel nee naa loo jege jege jege jege soxna jaara Mamor jaar gën laa jege soxna jaar moom mi doomi jaara waaye Mbàkke loolu gànnaayoo ko xeexee woo ko defoo ko fital danga koo def ndox mu sedd di ko jox taalibe yi ñuy naan kon yàlla na yàlla yàggal la fi te guddal saw fan jikko la nit ñuy toppee kon tubaar tubaarkàlla Mbàkke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan nag nga ñaanal ma sama gaay yi waa feex Production ndax ñoom génn bëgg rek lan am muy muy bëgg Sëriñ Bamba kon jeex na kon nag waa Tawfekh Production waaj leen te xam ne gàmmu peex la 8 février ñu ngi leen di xaar jërë ngeen jëf kontaan nañu مني تقبل دليسا ندرنا إلي أقبل جزاء الباي ما جزاء ابن قد سباي كسبيته إن ومن قل النبي علي تسليما قبر المسلمين اغفر بجاه المصطفى لكل من